Hey. jërë ngeen jëf war di ni war na gàngu nañu xalifa ay waxam xëy di wala ngaan ci mboolem yéen kaay ñu xëyandool bi l'observateur soxam war di ma ne woon premier adjoint bu xalifa sàll gannaaw ba ñu décret bu ndakaaru ba jëlee ko fa soxam war di ni la mu wutu ko conseiller municipal yu mairie bu ndakaaru ñoo daje keroog samedi tànn ko tabbu ko teg ko ca bopp mairie bu ndakaaru moom soxam war di ak Moussa Sy maire bu Parcelles Assainies ak Banda Diop maire bu Patte d'Oie ñoo doon xëccoo siisu xalifa sàll bi ndaw si gàñi leen ndax 64 ya wooteel ko Moussa Sy jël 2 ak 13 voix Banda Diop jël ndaare ak 11 voix lise ko nañu Moussa Sy ak Banda Diop soo xam waat di ne da leen a écrasé na a nappaaje ñoom ñaar nag amul lu ñu déggul ca ndaje ma yuuxoo nañu leen saaga nañu leen toroxal nañu leen tuutul nañu leen kii di Alioune Ndoye moom maire bu Dakar Plateau li ñu naan daw ca ba nga amee tànk loolee la def nekk fa di xëccoo lenn kenn bañ na ko sax ba ñëwul woon dafa santaane ñu wooteel ko lise ko nañu waaye Cheikh Gueye moo fa jooy jooyu ko laaj lu mu Gueye fa muy waxee fa la ronxañ yi tàmbalee dàqante ndax xol bu tooy ba ñu nee suba la ñuy wote yéenekaay bi nee nañu Abdoulaye Daouda Diallo pexe mu nekk teg na ko waaye jëlewu ca dara Soham Wardini gañe na gaay doon maire de Dakar las yéenekaay xëy ñu ko làkk ci angale Vox Populi nañu mooy ñaar fukkeelu nit ak ñaar bi mas a jiite maire bu Ndakaaru waaye mooy guléet jigéen ji njëkk a dégg madame la maire ca mairie de Dakar Soleil national moom it xëy dëggal xibaar a tàmbalee li mu njëkk a wax bokk na ci ne dinañu yeggale li fi Khalifa Sall tàmbali woon enquête moom amee ca beneen jàngat li mu gis moo di Khalifa Sall moo jël rawansam moo fayu ci kaw gaay Le Quotidien ne ko du ma ne la déet ne folli nañu Khalifa falwaar di ni waaye dafa mooy wéy di doon maire Dakar ba léegi ne kenn umpalewul ne Khalifa Sall ak Soham Wardini réeroo wuñu ci dara réew mi Quotidien ne ñu njiit réew mi Macky Sall moom ñàkk na caisse d'avance ba journal Source A nañu li ñu naan caw sa xiir loolee la Khalifa Sall def Macky Sall ak Ousmane Tanor Dieng ne teggi Khalifa Sall teg Wardini xamante ni loolee mooy tuba yu paate képp ci bolle te gaañu lu ne jéem nañu ko ngir maire bu Dakar sori waa kër Xalifa Sall yi waaye seeni pexe sottiwul Moussa si ak Banda Diop talaata wu réew wi ñu leen talaata keroog yéenekaay bi nañu moo waral ba ñu génnee ca ndaje ma Moussa Sy dane dafay tekki ndombal tànkam ci poste sub deuxième adjoint maire de Dakar ka ca des di Banda Diop ne bu ko kenn limaaleete ci coalition taxawu dakaar ndax génn na ca Soham Wardini moo fa mujj nekk di mocc ak a neexal Moussa Sy naan ko Moussa li nga waxoon ci suba jaroon nga ca yegg sa xarit la sa nday la tàllal naa la samay loxo ngir nga ñëw ñu ànd liggéey Demba Fall it yóbbante na fa Ousmane Tanor Dieng bu saf sàpp nee na gars yi bu ngeen demee nee leen Tanor gone yi ñoo gañee te ñooy jiite maire bi la tribune yu ci xët mu njëkk soxam moom mi Diaz ma ne woon ca kaso ba génn na les éco nañu keroog dimanche ay 5 heures du matin ci la génn dañu ko forcé sax génnee ko ci kaso bi sànni ko ci biti ñaari dërëm yoru ko woon ci fajar gi ci la jóge kaso bu rëbës dox ba ca corniche ba ci wetu rawdatu Seydou Nourou Tall jël fa taxi ne ko yóbbu ma sama kër arrivé payé Vox Populi las la tribune ak enquête ku ci nekk ci ñoom ne ñu Barthélémy Diaz suba ci talaate ji ci lay wax ca lay def déclaration du bàyyi dara A ba Z ABC di Alioune Badara Cissé médiateur de la République ak président Macky Sall fantasirogi gi ñu nekkee ci la l'observateur xëy xëy ñu fàttali seen jiitangaas gi ñoom ñaar na mu tàmbalee ba ni ci premier ministre bu Sénégal Mahammed Boun Abdallah Dionne Wàlla Sé journal bi mi ngi ñuy xamal sax ñetti ngànnaay yoo xam ne Macky Sall amee na ko ngir man koo xeexe médiateur de la République dage bu ministère de la gouvernance locale def na mbir ca wàllu billa Sénégal Fally Seck doo nit président alliance démocratique pour l'émergence de la vallée ma ngay dajale doole ngir gën a wóoral nañu li daaj fali sekk def looloo ci gën a tuuti ne kii di Mansour Ndiaye borom mouvement doole yaakaar di kàngamu politique boo xam ne ku nekk jëm nga koo xëcc mu bañ faali sekk fexe na ba mu nangoo ànd ak président Macky Sall jàppale ko ngir mu faluwaat 2019 nañu féete ak direct info ba léegi waxtaane hôpital moderne ba ñu war a tabax ca Touba yéenekaay bi ne nañu leneen coow am na ci ndax entreprise bii di Ellipse Project gannaaw coow li doxoon diggam ak beneen entreprise di SCPI ndax dañ ko caa bëggoon a génnee borom entreprise ba de Cheikh Mbacké porte leen plainte gaa ñu jox nañ ko cinquante millions ngir mu génnee xelam ci marché bi li jaaxal direct info ba tax mu xëy di ko waxtaane moo di marché bu ni mel l'hôpital boobee ñuy tabax daanaka lu mat ñetti milliards génn gum na ci te dara xewagul direct info di laaj ndax l'hôpital bi dañ ko surfacturé woon am déet bu dee loolu amu ci ndax ñi ko sànjaafu danañu ko mën a liggéey